rahmatullah lundi 9 mars 2020 ñëw ak yéen ci yëglekaay yi moo xam sunu lamb la journal record wala Leewtoo TV fu nekk tey xibaaru lamb xëy na fa bu dee yëglekaay bi sunu lamb la moom la mu xëy ñëw andil ñu ko mooy ki nga xam ne ni moo di Lac de Guiers numéro bu waalo la jato daal moom la xëy dalal Lac nag mu ngay wax que mu xëy na di dóor ay xeer du kenn ku dul Boy Niang bu déggoon ma dëkk ca Pikine daal la mu xam ne daal nee na Boy Niang moom loo ci mën a dégg lu yomb da koo bëgg ci làmb lu nooy dong dong dong lay wër ndax nag lii mu bëgg a def naan day laaj ay Balla Gaye yooyu nee na moo la gën a xam ne làmb boolewu ko ak Balla Gaye tey suba waxi noppi nee na li mu bëgg nag mooy tëbe fii dali fële te Lac nee na loolu mënta nekk tey suba waxi noppi ñu ne ko déet mu ne maa ko wax Boy Niang daal na xam boppam bëri jëg ñu mu war a bëri ne na man daan ko daan man la bi ngir hypothèse ci sama carrière boo xoolee nee na daan booy ñang moom ak bañ a bëri ci moom ak daa jàpp na sax benn kese la nee na fi mu nekk nii daal moom laaj dëgër na la moom jàpp na ne booy ñang moom na xool leneen lan nag nee na moom ci boppam moom muy wax nee moom pare na ngir jàkkaarloog Tapha Tine ngir combat revanche lak moom loolu la wax waaye am na lu muy ñaan woon ña yore làmb ji di waa CNG ba lak ne na leen li muy ñaan mooy Alioune Seye 2 nañu ko jéggal maanaam gracier ko daal baal ko ah Lac de Guiers 2 loolu la xëy tey di ko ñaan ña nga xam ne nii moom baalaguñu àq tey ñëw ci seen bopp di wax mooy arbitre Babacar Diop mu ngay wax ci ñi nga xam ne ni ñoom ñooy arbitre moom nag moo jiite arbitre nga xam ne ni ñooy def simple Babacar daal la mu xam ne daal nee na la ñu def ñoom ñu ngi koy assumer bu baax a baax a baax Babacar loolu la wax mu mel ni kii nag samedi ji nu génn moom dalal nañu nañ leen maanaam seqal ñoom waxtaan muy Sitor ak Malick Ngom mu mel ni ki daal fi mu nekk nii kon li leer ba leer moom fan yi boo sàgg ni ay décision dana génn jëm ci mbir moom nga xam ne ni daal mooy mbirum arbitre yi waaye li leer ba leer daal ñoom jàpp nañ ne day ci seeni principe la ñu ne la ñuy laaj itam wala tax ñu gerab ci ay principe yu wóor la ñu ko teg ci aw yoon xëy ñoo xëy rek bëgg koo def daal di ko def déedéet ñu dellu ko tey ci sunu làmb mu mel ni ki nag te nga xam ne nii moo di bàyyi booy nag man la dëggee ne doon sànni xeer léegi xëy na di fa wax muy déggoon déggoon nag moom la mu xam ne wala la ñu gis mu di ko wax mooy fi nga xam ne ni daal mooy 100 pour 100 ba daa mel ni kii daal fi mu nekk nii teg ko mu jaar la ñu nar digganteem ak Zil Balde ak yeneen ak yeneen yoo xam ne daal mu mel ni ki daal jàmm la ñu bëgg nag gën koo taxawal ci seen diggante ànd unité doon benn daal mooy gis-gis ba te nga xam ne nii nag mooy Bourkhane Wade nekk manager booy nag te coow amoon ba ñu nangu licence ba daa mel ni moom itam licence am delloo nañ ko mu mel ni kon daal fi mu nekk nii moom boo bëggee dégg dëgg ginnaaw jàmm wala boog ginnaaw ay jàmm olof Ndiaye. moo ko wax bu nu continuer nag dem fa nga xam ne moo di ca Leewtoo bi moom la ñu fay fet bu fekk ko ci record mooy jamay jamaykee jamaykee daal démb boobu bëggee dégg dëgg moom arène nationale toj na ko ba mu toj ndax nag Franc la fa andi woon bépp saabu ñu ne déet ne waaye ki nga xam ne nii moo di naa numéro 2 wës jàmbaar mu mel ni ki nag démb moom lamb ja feesoon na faroon na fuuroon na waaye diggante Fara ak ka nga xam ne nii moo di Bébé Saloum da daa mel ni baat ak tontu la mennam cong bennam jàppante béppay mboot ñu suruxal ko wër ko bës ko mu tëgg combat bu leer nañ waaye wës jàmbaar tam daal mboot ma mu mboot Konia moom mu nga fa tege ni tege mbokk mu rëy a rëy la ko boot mu mel ni kon dem daal arène nationale ba moom loo ci mën a dégg moom ah làmb dafa amoon rëyoon na ba yegg ci lool lool ka fa jaaroon nag moo di ki nga xam ne nii moom moo di jamaïcain waaye munu continuer ca samedi ja moom Ouzin Production moo fa ñëwul ci diggante ka xam ne nii moom moo di majji majji bu waalo ak ka nga xam ne moo di Angleterre bu dóor dóoraat waaye Angleterre nag moom retouram ba moom la ma ko marqué mooy kaw tépp korosé mu daanu wàcc loolu la Angleterre def ko nga xam ne ni moo di majji majji mu mel ni Ouzin Production nag moom borom 300 litres yi moom daa mel ni moom itam projet ba na ko di loolu la ñu andi loon waaye samedi jooju itam fa nga xam ne moo doon ca Pikine ba yàlla sëñ mën moom la mu xam ne daal na na li leer ba leer gàmmu moom la mu koy wax bëriwul xanaa kay at mu soufflé mu won ko ne moom li mu moom da koy jël si te itam nag sox mu ngay dëggal nee na daal moom li am ba des Pikine bu amee relève nee na moom mooy relève ba ndax nag moom la ñu dénk mbir ya ndax li leer ba leer moom ci ginnaaw Ama Baldé Eumeu Sène wala Boy Niang moo ki rakkam wala boog moo ko mu bokkal Pikine ñoo fa nar nekk di doxal te ne la dimanche ji la 15 mars moom dana ko wane bu baax a baax ca arène ba kan ko seqal nag di gàmmu géey moom ku yebu xaar ko tey jii lay def open press am fa nga xam ne mooy ca tëngéej fa si yeneen tontu combat ba nag ka ko teg du kenn ku dul Baba Diaw ma nga xam ne mooy borom ca production kon dimanche ji nu jëm moom la 15 mars arène nationale ba nar naa toj ba yegg ci lool waaye itam la 5 avril itam de lu jar a bàyyi xel la muy diggante Siteu Papa soow Pa Abdou Fall fa jaar ñaari mbëree nag jàkkaarloo ba ci 2STV moom tàngoon la jër soo ko seqoon ak ñoom mu mel ni ki nag waxante ba bëri woon na Siteu ne na ko li leer ba leer yaa ma provoqué ma riposté te itam man lu la waaye mën a wax moom ah duma ma tooñ waaye ku ma bokk dama lay xoole ba mu naaj Papa Sow ne lu mën a xew day lépp lu ma a def dinaa ko def ba daan la loolu daal mooy wax ji mu mel ni ku doon daal la 5 avril moom ku yëngu itam waajal ko ndax bés la ci bés yi ba tey bu demee record itam mu mel ni ki fa fan fay fekkat daal mooy mbirum Bébé Saloum ak ka nga xam ne nii moo di Fara mu mel ni ki yëgle kaay moom tënk na combat ba ca la taaba une minute cinquante la ñu am ndur xamal daal ca ki nga xam ne nii day moo di Fara wan Bébé Saloum boppam mu mel ni kii nag kon daal li leer ba leer moom làmb ja fi mu nekk nii moom jax na ba yegg ci lool waaye li ma gën a neex nag mooy jamaykee làmbam ji démb yàgg maar ñëwoo ci waaye tànn nga neex xam nga lu ca neexam sénégalo gambien bi maanaam boo bëggee dégg ñaari réew yi jamaykee lëkkale en tant que promoteur bàyyi bi di sénégalais yaay ji di gambien staff ba ñii Gambie ñii Sénégal mu mel ni kon daal yàgg maar diggante Gambie ak Sénégal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 maa ngi lay fin ah, di la delloo ziar di la wax merci jërëjëf waaw bul son bi moom xam naa ñi ko tudd bëri na mais nag xam nga Sénégal daa bëgguloo naay sax lu rafet moo tax dem ñu bëri apprécier nañ ko ba ci sama DG sax calis ne na mën naa ko ko jox wala boog naa wax ki ma ko jox mu jox ma ko kon mbay guy gi yaa ma jox blouson bi utal ci calis waaw mbay guy gi daal moo fi jaar ci blouson bi. dàll yi dàll yi Balla Gaye numéro 2 moo fi jaar gis nga Nike bi ah. montre bi per Bas Cissé borom montre yi. waaw waaw waaw mais. <laughs> ta dagg na prix bi moom per Bas dagg na prix bi looloo tax di nuyu ñëpp ah internautes yëpp di wax ka ni daal. waa noonu la fi demee abiment bi moom tey champion yi mbër yi ñoo fi jaar mu mel ni kon diggante Babacar ak mbër yi moom cere suukar voilà wala lem gu ñu segg la booleeg meew quoi day yomba suukar mbër yëpp maa leen di nuyu di jël nuyo nuyo bi teg ko seen loxo parce que gi actuellement mooy Modou Lo parce mooy roi des arènes. ngénte li Modou maa ngi lay bëggee bu baax a baax yàgg yàgg di nga ñib si sa ngénte nag xam naa ca biir Amérique yaakaar ne gars yi fii non boo ñëwee moom. faw gaa yi ñëw sa kër de. ngay sant ah, Babacar Mbaye. man kay Modou dinaa soppeeku moom di nga ñib si de di ko nuyu bu baax a baax moom tamit nekk nit bu nga xam nit bu baax la di ko nuyu di nuyu champion yëpp daal mbër yëpp mag ngi di nuyu di leen. bébé Saloum bébé non dama koy encouragé nuyu ko encouragé ko parce que moom tamit nit ku baax la parce que xam nga li ñuy wax ndey ku ma des fois euh, nit ay nit mën ngeen xaw a ñàkk déggoo ci réeroo loolu la rek mais du lu garaaw loo xam ne nii kii na xëy na la mu wax par rapport ak moom li mu may expliqué comprendre nañ ko te tam jilaat na ci ay micro wax ko kon defe naa loolu bébé suñu frère la suñu lépp la di ko wax ne làmb moom dugg na ci yàlla def na li mu dugg muy bëre di sport dafa am défaite am machine am victoire démb am nga défaite gis naa ko sax mu ne bàyyi na mais bul bàyyi demal nga entraîné xool li la manqué nga ñëwaat ki la daan actuellement ku mënta daan ci làmb pour man est ce que comme ni ñu waxee làmb moom la ngay dem defaruwaat rek ñu la gën a nekk champion foofu ñu la gën a mag laal na dégg nañu muñal kon bokk soo déggee muñal nag war warul nekk loo xam ne loo bett wala bokk lu bees demal defaruwaat ak say dina baax incha allah Babacar ni ñëw nag ak sunu làmb sunu làmb dafa xëy dala ki nga xam ne mooy Lac de moom daal ni mu gis daal dafa xëy daal sànni ay ay xeer yu rëy ki nga xam ne mooy De di doomam euh, Boy Niang 2 nee na Boy Niang 2 dafa bëgg a brûler les étapes na pour mu def nànk nee na daan na Boy Niang 2 mais indi lu ko dara yokk lu ko wàññi ko li nga xam ne moom mooy carrière nag pare na nag pour jox revanche ki nga xam ne moom mooy Tapha ndax nu fàttali ko si 2006 daana na ko si calaf fii Babacar waaw waaw Boy Niang daal te yow boog lak moom tey ay kabaam la yor rek tugi jubale pikit <laughs> waaw nee daa bëgg a ay étape waaw moom yàgg nay wax wax boobu ah moom boo xoolee ci fu bare bari fu ñu wax boo ko waxee diggante Balla ak Boy Niang lam lay wax mooy du combat warta mën a ne te nee na su ci amee ndogal Balla Gaye 2 du bëri ak Boy Niang parce que moom dafa jàpp ne Boy Niang deful lu war a tax Balla Gaye 2 di bëri ak moom moom la lool la jàpp moo tax mu jàpp na dey biri la ay étape loolu nag am na si droit parce que lu tax mooy bëri naa ak Boy Niang daan Boy Niang yaa ngi dégg kon yaakaar naa ne Boy Niang itam li ñu koy wax mooy digganteem ak Balla Gaye xam nga lu ko doon yombal pour mu gaaw dëgg dëgg dëgg mooy mu daan Lac de Guiers avec la manière loolu bokk na tey ci li nga xam ne nii bokk na ci li nga xam ne moo gën a sax tax téye combat bi mu mën a mu dëgër kon nag loolu mu lay wan ne làmb moo demee noonu moom lag itam revanche ak Tapha waa lool moom il dafa ñor diggante Lac ak Tapha Tine woon nañ ca kalaafu Gaston Mbengue ba ci ati 2007 ya kon yaakaar naa actuellement vraiment ñaari mbër yu tol noonu ak fi ñu mujj ci ay victoire xam nga di ay njool bëre benn combat Lac daan ko jëlee bu leer tey Tapha nekkaat taxawaat Lac nekkaat taxawaat defe naa il est l'heure que ñoom ñaar ñu revanche quoi bëre. Babacar Pikine nañu des ba tey ki nga xam ne mooy euh, dëggoon mi nga xam ne moo jëloon euh, licence si loxo euh, ki nga xam ne mooy bur xam di manager booy Niang nañ daal ñoom naa ginnaaw ay jàmm déggoo nañu ba père de Gaulle jël jëlaane licence bi delluwaat ki nga xam ne mooy bur xam waaw ay ginnaaw ay jàmm moo am solo parce que bur xam moom li may wax si loolu mooy dafa yàgg ak Boy Niang defe naa ne booy ñang ca petit combat ba tey nii moo ngi engagé euh, Burxaan a ngi koy engagé kon defe naa dama naan jigadi wu ko yaa ngi dégg xëy na nag des fois ay riiroo am mais déggoo li itam naa ne yéenewul dara lu ñaaw euh, Burxaan parce que ñoom ñëpp ñoo bokk euh, pikin bi et tamit mbër mi ñoom ñoo ko séq yaa ngi dégg ci carrière bi parce que mbër yow mi way juram danga koy yaay yaa jur doom ji muy mbër nga war ko encadrer jàppale ko waaye tamit encadrement bi yëpp du yow yaa koy def dafay am ñeneen ñoo koy bokkal ñoo xam ne ku ne parce que dina am ay entraîneur am ay ñu koy xelal am lu nekk kon comme loolu amaat na dañuy wax ñu jéem a gën a defar diggante yi te encadré seen mbir parce que loolu tamit booy ñàng xale la te ñoom ñu ñooñu ñu muy déggool papaam muy burxaan manager am ak ñeneen ñi ci des ñoom Cheikh Ndiaye boxeur ñoom ñoo ko war ñoo ko am sa encadré ba fi mu yegg si nii tey kon defe naa nañ ko gën a taxaw rek gën a déggoo waxtaan day am solo journal sunu lamb aussi ñuy xamal aussi euh, grève arbitre mi ngi mi ngi continuer ba tey nag samedi bi rek euh, CNG commission discipline et règlement et discipline bi nga xam ne Babacar Diouf moom moo ko jiite woowoon na ki nga xam ne mooy Sitor Malick ak Babacar ñoom daal bu ñu génnee si audition boobu daal seen taxawaay changé wul ñoom nee nañu daal lépp lu ñu mënti def ci ci ci ay grève wala bokk ci ay mouvement ñoom lañ koy assumer ba mu jeex tàkk Babacar ni nga xaar nag euh, lu commission bi di digal ginnaaw nag bu ñu leen dégloo ba pare. waaw li am solo daal mooy ñoom li ma waxoon laay wax rek arbitre yi ay responsable lañu ñi leen di liggéeyloo muy waa CNG bi tamit ay responsable lañu kon ñu mel noonu nag bu ñu nekkee ay mag yàllaay jëmm agents yi dégg ñoom ñooy arbitre ñu xëy tey ne dañoo grève parce que xëy na am na lu tax lu ñuy réclame wala lu ñuy doxal lu leen neexul defe naa itam la leen war mooy ñu déglu leen xam naa ni déglu nañ leen samedi li ci war a des nag mooy lay génn comme ay décision décision yi nag suñu sañoon moom dàq du ci bokk ak ay sanction yooyu li ci war a am mooy la ñu waxante ñu jéem a xool nu ñuy améliorer seen nekkin parce li ñuy def maîtriser nañ man li ma jot a gis démb ci làmb ji te ñoom arbitré wuñ ko wax dëgg yàlla da xam ne ñu doon arbitré ay jàmbaar lañ mais mbir ya des na bu baax a baax a baax parce que da nga koy da nga koy gis ci biir làmb ji waaw kon nag yaakaar daal ñu jéem waxtaan ak commission arbitrale bi ñoom waa seen seen ñu régler seen situation ñu ñëwaat continuer seen liggéey parce loolu am na solo Babacar nu des nag suñu làmb ak ki nga xam ne face à face Papa Sow bi amoon sam ne foofu noonu si 2 ñaari mbër yi nag joxante nañ ay kàddu nu jagleel ko nag ay jigéen journaliste yi jigéen yi yëngu si wàllu làmb ñoom lañu fa invité woon ñoom nag pose nañ leen ay question ki nga xam ne mooy euh, ki nga xam ne mooy Siteu ñëwaat na si incident bu fa amoon keroog si face à moom nee na moom képp ku ko tooñ moom day riposté Papa Sow nee na ko man loolu yëpp euh, li mu yitteel daal mooy toujours ba daal am sama ndam yóbbu ko fi nga xam ne mooy parcelle waaw mu mel ni kon loolu Bijou Ngoné moo leen dalaloon daal fa tamit suñu ay concert ah du noonu lañ koy waxee ñoom faat ma Dia ay Khady Faye ah ñoom ñëpp ñu nga foon ay Rose gis nañ leen fa mu mel ne ki amoon solo la muy innovation waaw Siteu nag ak Papa Sow moom yaakaar na ne la sama papa Sale Biége Ndiaye wax ne ci luy baax du moo ciy ne ci kàttanu yàlla moom du que li tax mooy ñoom ñaari mbër yi fi nga tëdd tax Siteu guy gi da koo mujje daan mu def ko daan mu def année balance mu sañ ceegri bu bees kon defe naa moom ndam kese kese kese lay gis Siteu itam dafa bokk si lamb te yaakaar ne tey fi mu nekk nii ah daan Papa Sow moo koy gën a tax am li mu bëgg ci làmb kon yaakaar naa daal le avril bu ñu fi yàlla bàyyee daa gis combat bu tarte metti waaw. Babacar nag suñu jógee foofu nag dañuy dem fi nga xam ne mooy Leewtoo TV Leewtoo TV samedi mi ngi woon arène nationale foofu nag ki nga xam ne mooy Angleterre toog na huit ans amul bëreewul euh, moom moo am nag ndam nag si kaw ki nga xam ne mooy màjj màjj. loo ci mën a dégg de moom kuubam ko dóor métti na waaw xeex nañ de xeex bu tar. boo xoolee nag Angleterre moom wax dëgg yàlla ba loxo ba dalee moom maji maji daa wàcc ñu koy félicité moom Angleterre ñoom Garga Mbossé ñoom Tim Timo la ko indi woon kera

ay image dafa mel ni Franc nekkatul parcel mbooloo parce que la ko indi laaj njomboor laa gis jàmbaar wrestling academy la bokk Balla Diouf laa gis fa la bokk Lato laa gis fa la bokk ñii ñoo ko encadré dem indi ko ak it mu mel ni kon daal moom daa mel ni te toxu na foofa ba muy bari tam Lato moo toog ca sées ba te ñooñu duñu waa parcelle mbooloo waaw waaye nag li am solo mooy am na ndamam kon bu dee écrit jàmbaar la bokk bu bees ba daa mel ni kon ak Franc démb ñu leen di féliciter encouragé waat bébé Saloum comme li ñu waxoon rek que ni mbër la champion la lamb moo demee noonu xam di encouragé tamit ay supporters am yëpp ñoom laata gars yi koy soppe yi koy wéy mais di féliciter Franc di wax ne Franc itam li mu nekk nii day bu ci jógul ne ma dee su ko daan may daan ko dana jafe parce que nag mu ngi entraîné sérieux na te bëgg na li muy def te itam da ciy jëmbat fulla te la Youssou Ndour woon rek Dakar sa boo koy jaay faw nga am fulla moo tax fulla baax na trop si doomu aadama fulla nag bokkul ak dab wala ay tooñ mais fulla ci li ngay def moo tax Franc daal ñu ngi koy félicité bu baax a baax mais di félicité tamit le promoteur jamaïcain parce que lu waral mbir mi moom la moom damay wax rek que ni ah promoteur yëpp yàlla na réussir seen i journée waaye jam nag dama ko ñaanal moom it muy réussir 100 pour cent parce que li tax mooy dañoo àndalu yàgg muy sama rakk yàlla def tey mu yegg si fii mu yegg si kon vraiment démb journée yëpp neex nañu waaye bu démb bi dañ cee fier bu baax a ndax ki ko tëgg la muy jamaïcain Babacar nu jeexee nag euh, ak Leewtoo TV ba tey ki nga xam ne mooy gàmm mooy def euh, open press tey jii euh, combat bi nag journée boobu noonu ki nga xam ne mooy Thiam production moom moo ko taxawal Babacar. wante xam naa ne loo ci mën a dégg lu gars gisoon démb ca arène nationale ba la 15 bu ñu fi yàlla bàyyi dañu gisaat lu ko raw ndax Thiam production Baba Diop ñu koy nuyu di ko jaar la mu ëndee doy waar soq la ma gis këram mu def ko Pikine biir këram laa ko topp ci kanamu soxnaam. ba ca bayaalu sëñ Mansour mu def fa lu doy waar waa Pikine ñëpp génn gàmmu gi tey xam nga ne waa Tëngéej pare nañu ndax ñoom wax nañ ma lu mel noonu ñoom lébu lañ li olof naan ku la yëkkal xël nga yëkkal ko gang ndax ñoo yemi gàjjoon ñoom dañuy defante ba mu saf te doo ca yem de Pikine ba tey day ñëwaat ci bis boobu Mbagnick Kaïré doomi booy kayre ku ne xam na ne kayre ko jur muy jóge Medina ak Soumbédioune ku muy dajal Jacob Balde doomi Sil Balde Paul bu daaru Mamor Mout Séréer ak nga xam ne nii mooy Kaw Cissé numéro 2 kon defe naa itam Ndeye Coumba Fall weekend bii di ñëw dana tar trop surtout la 15 boobu. yal nañ si egg si jàmm ak salaam si kàddu yooyu nag la leen tàggoo di leen jox dig daje suba incha mais balaa boobu nag mooy nuyu suñu jigéen ñi ki nga xam mi mel ni sama yaay mais euh, euh, kii nga xam ne mooy Khadija Tandine depuis Parcelles Assainies kooku moom sama waay la sama xarit la euh, ki nga xam ne mooy Khoudia Seck chéri a Seck tamit yaa ngi si biir nuy samay doom maam Diarra Penda grand Fallou xanaa ma boole ko si biir rek ndax mënut a ñàkk Abdou aussi félicitations si di bi nga xam ni moom nga am. semaine bii ñu génn depuis États-Unis Papa Sita Baye Fallou jàmmagal di nuyu nga xam ne mooy euh, samay euh, samay cousine euh, jobbe depuis Mauritanie yéen ñëpp yaa ngi si biir nag di wax nag Babacar no góor yi nag yërëm jigéen naan leen doy na doy na doy na Babacar. waaw góor de bu yërëmul jigéen moom dama naan sax est ko góor la. góor Ramos yaa ngi si biir fàtte góor gu amul yërmande si jigéen góor day am ci jigéen yërmande. Mm. yaa ngi dégg loolu moo war a am loolu moo war a am ay ray ak ay jàmm moom defe naa yooyu nit du rey nit rawatina nag jigéen. yaa ngi dégg nit ki moom mbëggeel dafa mbëggeel bu ci yërmande amul mbëggeel amatu ci yaa ngi dégg nañu suturaal jigéen ñi mayante jàmm loolu am na ci solo waaye tamit di wax mention spéciale ñi nga xam ne dañuy yëkkati seen ay alal di ko jox Babacar di ko solal dal ay yére muy commerçant yi waa seen yi du leen fàtte ñoom euh, ki nga xam ne mooy Babacar bu Modou la ma ngi kii nii bu baax a baax Mor Diouf ay ñoom jib seen xam nga ki nga xam ne nii mooy Cheikh Lambaye Petersen ñoom ñëpp maa leen di nuyu ah di nuyu Sall Faye marceti leen mbay gu gi gis nga li mu def moom tamit Balla Gaye de si dàll yi mu mel ni kon diggante Babacar tamit ak mbër yi macha allah maa leen di nuyu ñoom mbër yëpp nag di leen ñaanal jàmm ba parce que dafa am na ndey Kumba Fall si Abdoulaye da ko waxoon géwél amul mais ku la defal lu baax nga wax te mbër yi dama gis ni may jàppale muy mbër mu ndaw mi ba ci moom yónni ba sama biir kër wala xaritam Ibulaay te dafa fa naroon jël xaas bu bëri jox ko ko yaa ngi dégg ah, dafa am yoo xam ne des ko war di wax pour ñu di ko dégg di ci man di roy parce que te man defaluma leen dara wallaay la sim sama liggéey laay def mais xëy na ñoo ko magnifié ba tax yooyu yëpp ñu di ko def muy nuyu bépp mbër bu mu mën a doon di leen ñaanal jàmm parce que olof a ko wax ñu bokk buum ñu bokk teen ñooy laxasoo ay goj ku ci ne rek la ngay def muy sa carrière yàlla na nga ko réussir à 100 pour cent di wax que ni ne ñoom tuuti yaay Sarr duñ ko fàtte moom tamit démb ñu ngi doon sargal ci bisu démb bi ak képp ki nga xam ne nii jigéen nga Amina Ñing Asi Diagne borom nu ak sot waa Andezim Demba Sis ak jigéen ñi nekk foofu yépp sama coach su boobu maa ngi leen di nuyu di ñaanal ñëpp yàgg mention spéciale moom tamit bopp bi da doon metti sax bëri ki waaye heureusement tane na tey moom fi mu génn ci dàll kawe noir balaa la jëm incha allah